bismillahi rahmaani rahim sabit lisaani nawir janaani safi amaani wasil baraani fahimni al ilma wa zidni ilma wa amalan wa adaban wa fahma barke borom Tuuba barke borom Tuuba barke borom Tuuba asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di baal ñëpp ak di balu ñëpp ak di jottali kàddu yoo xam ne kàddu yu gàtt te tënku rek lay doon muy kuréelu Majmahun Nurayni muy kuréel gi fàttali ko jaar ak Serigne ci Ndakaaru nga xam ne naka jekk danoo mas a ànd ak waa Touba buntu Pikine ci liggéey boobu nga xam ne ñoo ngi koy liggéeyal Serigne Touba ñu ñëw fi nag ci ndigalal jawriñ ñi liggéey bi nga xam ne mooy Serigne Juga Jeng mu wax ne bu ñu àggee ci bis bi ñu santal ko waa buntu Pikine bu baax a baax ci seenam ab taxawaay ak seen ak jàpp ci liggéey boobu ñu ànd di ko liggéeyal Serigne Touba muy fàttaliku di fàttaliku jaarul Serigne Touba ci Dakar ma ànd ak jëwriñ ñu ne wax Serigne Mouhamadou Dieng Kalsaan nga xam ne moo topp ci jëwriñu liggéey bi waaye ànd ak Baye Sène Baye moo yore finance waaye ak Serigne Alhaji Seck mi nga xam ne léegi la yëkkatiku moom it yore secrétariat bi ak ku ñuy wax Serigne Moustapha Fall ak Soxna Ami Kolle Mbeng mu mel ni sax waa bunt bi gën ràññee nañu ñoo ñu ci mbooloo mi mbooloo mi nag ñu di leen sant sant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci liggéey bi nga xam ne dana koo àndandoo di ko def waaye mu mel ni nag loolu lii seen bopp rek lañ koy defal ndax li ñuy def mi ngi sosoo woon ci Serigne Saliou Mbacké yàlla na suñu borom yokki leen te na ci barkeem ñu tàmbale ko 1995 di ko defee foofu ca Touba bi ko fa defee at yi bëree bëri def nañ ko ci lu toll ñaar fukki at ak ñeenti ci lan doog a jotee digal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mu ne na ngeen ko yaatal te ànd ko ñëpp ndax yéen ko bokk boobee nag lan ko tàmbalee di ko defee Masaalikul Jinaan nga xam ne ñëw nañu fii ci buntu Pikine ànd ko waa buntu Pikine yëpp waaye tamit ci ndigal loolu nga xam ne moom la sëriñ bi jox na yaatal leen ko loolu it ñu yaatal ko ci tund Bawol yaa ko fa lool nga xam ne yaakaar naa ne euh, sunu mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom ñëpp yëg nañ ne liggéey boobu àgg na fa ndax waa kuréel bi kat am nañu ay barab yi ay xeeti jumtukaay yoo xam ne dañ koy jëfandikoo muy ay xasida yu ñuy barkeeloo di ko wecciku te loolu yaatu loolu ci tudd ko woon yaakaar naa ñëpp xam nañu ci kuréelu ñaari guddi Dakar yi loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne kàddu yi cant la yu nu ma joxoon loo xam ne sax xëy na waxtu bi moo xat waaye ñoom ni nu ma ko sawee ak waxee wute na lool ñoom ñi ma ko sax ñoo ma gën a mën a xam la nu bëgg a wax wala ñoo ma gën a xam li nga xam ne moom laa war a wax amaana ñàkk a mën a wax moo tax lu ci des rek des ci waaye ñoo ngi koy tuub bu baax su ci amee te di ko jéggalu bu baax a baax di ñaan bés bii nag yàlla nañ ko fekk ay at yu bëree bari te ngërëmal sëriñ bi ñu ciy sàpp yàlla nañ ci dajeeg moom yàlla nañ ci dajeeg ndimbalal sëriñ bi ak tawfeexu sëriñ bi ak ndimbalam ak gàttandoom ci barke Cheikhouna baax na jërë